الأبرار والآل وصحبي أقمار أوفاتي وأوصابي لهم سلكوا ربي من سيد الحاج مالك نال والآل وصحبي أقمار أوفاتي ومن سبيله salako rabbi ko abra li nga xamante ne moom moo xew fii nga xamante ni moom mooy grande mosquée rawatina appelu euh, imam Massamba euh, ci li nga xamante ni mooy construction mosquée bu euh, Tivaouane tey fan lañ mën a natt fii nga xamante ne moom mooy cotisation ak levée de fonds. waaw levée de fonds bi mbégte la ndax li fi mos a xew tey ci wàllu demande mosu fee xew ñu ngi leen di mbégte la bu rëy bu dépassé. l'entendement tey tey waxuñu la la communauté lébu sax toute la communauté religieuse sénégalaise y compris mag ñi ñëpp dajaloo nañu tey nekkoon ndakaaru ŋànk ñëw imaam wuyu si imaam Papa Samba kii nag ku xamul trajectoire am ci réew mi yaa koy ŋàññi mag mu yiw la ku am diine la ku gore la ku am fulla la ku am fayda la ku ñëpp respecté ay position réew mi nag dafa am lu fi bëgg xew te mosu fee xew ndax ñun toutes les chefs religieux toutes les représentants d'une communauté religieuse ak imam yi nga xamante ne ñoo ŋànk wàllu ndakaaru ak wàllu fu ñu mënti doon ci capital régionale yëpp kilifa diine yi fi mës a ne cër lañu leen mës a jox am na yu fi xew bees nag yoo xamante ne c'est à dénoncer tey mooy ay nit ay leader politique làmboog certains mouvement religieux je dis des certains mouvements religieux yoo xam ne cosaan nañu ci réew mi am un programme bien déterminé par rapport ak réewu Sénégal def seen objectif ànd ak seen i xale ànd ak seen i ñoñ suba ak ngoon ñu nekk ci dans le net di saaga kilifa diine yi loolu c'est à dénoncer ñu ngi koy dénoncer ci réew mi di wax nit ñi nañu dellu siwaat ci seen njaboot lëkkaloo ak seen i doom wax ak ñoom li ñu war a mën a dégg ngir réew mi liggéey bi fi sëñ Touba def Seydi Hadji def ko Cheikh Omar Foutiyou Tall def ko euh, góor gi Abdoulaye Niass bàyyi Ahmed bàyyi xalifa Niass ak euh, Cheikh islaam def ko fi Serif ay dara bu Bañeer sëñ Birame Diop mu Ndar et cetera et cetera kenn xamul lu ñu toll liggéey boobu ñu fi def moo tax tey ñu islamiser Sénégal samp ay daara ba réew mi mën a toll fi mu toll ci wàllu diine loolu nag nañ ko sauvegarder suñu nekk suñu ànd sunu sunu sunu sunu sunu pas-pas suñu demalante suñu waxante lu baax loolu nañ ko ànd téye ko parce que bénéfice la képp koo xamante ne mosoo voyager à travers l'Afrique def Sierra woon def Libéria def yeneen dëkk yi doo xam lan mooy yee fitna ci réew mais ñi fa nekkoon xam fa immigré fa xam nañ ne réew lu dul jàmm-jàmm ko gën Sénégal yàlla na ko yàlla defal jàmm imaam jotewul ak kenn dara lu dul wax li nga xamante ne da koo jàng ci téere yi xutba xam ngeen mooy lan mooy actualité réew moo gis booy xutba ci jumaa lay sa actualité moom ngay wax waa li ne ci actualité bi wax la ñuy tontu sëñ Moustapha Al Amine def na ko nit wax na jël xalif général yi wala kilifa diina yi dendale ko wax leader ne moo ñu gënal xalifa sàngam yi waaw mu tontu ci loolu ñu koy wax du ko quoi kon na nit ñi amaat yar amaat teggin te xam ni réew mi daa am lu ñu ko mooñee bu ñu ko yàq. indi ni joxe nañ cent mille francs mais précédemment dañuy continuer di joxe àpp nañ ko 10 millions incha allahu taala. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ba léegi depuis 13 heures ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy euh, juma euh, grande mosquée bu euh, Dakar euh, tey nag euh, ki nga xamante ni mooy imam Samba Pape Samb moom moo woote fidèles yi à ce que ñu ñëw dimbali ko pour li nga xamante ni moom mooy tey construction jumaay Tiwaawoon tey nag ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi wuy si nañ ko ci appel boobule rawatina depuis dix heures ñu ngi fii ci biir jumaa ji ba léegi ba jëm jaan yàlla tey jii nii ñu ñaa ngi joxe seen contribution muy ci domaine financier financièrement parlant am na ñoo xamante ne joxe seen wàll am na ñoo xamante ni nag eh, ci li nga xamante ne mooy seen doole eh, mais à hauteur de 1000 francs ku ci nekk fu sa poche yem yaa ngi koy yaa woote bi yàlla moo ne bu ñu leen woowee ci lu jëm ci yàlla na ñëpp daw wuyu ji bu tey bi nag dafa special ndax ki ko wootee Aliou Moussa Samb sunu kilifa la ci wàllu lébu mu doon laaj 1000 francs pour jumaa ji moo tax ñiy sant si. ñëw feddali ni la mu doon laaj yegg na waaye mieux am ñu jóg doon ay détracteur di wax wax ju ñaaw jëmale ko ci kilifa gu toll nii xamatuñu nag fu réew mi jëm lébu du fen du wuruj du sàcc mu jaral ko nag bakkenam donte le dañu koy rey ci dëgg rek lay dee loolu moo tax ñun la ñuy doon imaam di ay lébu ñu jóg jàppale ko moom xam ne li mu nekk mooy dëgg waaye jàppale ko xam ne yoonu yàlla ku ci nekk fokk am ay jaahil ñu xamul jóg di contesté tey nag li tax ma ne événement spécial la ñëpp mobilisé wu la jeunesse comme ay jeunes ñoo jóg envahir réseau yi di yàq faf ndekete yoo ils ont fait la bonne propagande nit di nga wax ne da ngay yàq assez intuhi bu chey an fa huwa charun lakum wa asa an tukrahu shay'an fa khayrun lakum ñoom li ñu doon bëgg ci effet bi muy def effet contraire la def tax na mobilisation am ñëpp jóg de manière spontanée jóg wuyu ju woote yàlla bi nga xam ni xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour moo ko porté au niveau de la région de Dakar de Cap-Vert Alioune Moussa Samb porté ko ñun itam ñuy imam di xaleel bokk ci famille bi jóg jàpp ci te yàlla tax yàlla wax ci alxuraan ni masu masul lazina yunfixuuna amwaalahum fi sabilillahi kamasali habba benn dërëm bi nga joxe moom mu tënk ko ci 1000 francs nit ñi indi ay 1000 1000 1000 ba mu dajalee mu jëkk doon presque trente trente un millions tey li ñu fi dajale depuis bi ñuy julli jumaa ak bi ñuy pare léegi xadara amaat nañu presque quarante millions lu tegu ci lële lu tegu ci 31 yi donc dépassé nañu cinquante millions di dem ci benn bëccëg kon nga xam ne woote yàlla mooy dëgg te yàlla moo ne wuyu ju leen ci ku leen di woo ci lu jëm ci yàlla man itam ñu ne dañ koy reproché pourquoi mu ne sama jàkk Seyduna Muhammad daf ne masjidi haza sama jàkk ji kon dafa toppandoo ku wal mburu tudd dëkk boo fa ma jógee barki démb rek ci war a laa fa jógee barki démb korité wu ma fa falaa korité ci jumaay Seyduna Muhammad pourquoi ñu ne jàkka yi yonent bi masjidu nabawi la ñuy wax moom mooy kan Seyduna Muhammad du yàlla mais dañ ne masjidu nabawi ku tudd mburu ku tudd dëkk ku wal mburu tudd dëkk kon moom la fi yàlla teg dégg nga wax ji la ko fa yàlla teg moo tax ñu dàkkantal ko mais ñëpp xam nañ ne anal wa anal masajida lillah fala tad'u ma lay ahadan kenn neewul allahu akbar ne Alioune Moussa Samb pourtant juma am la mairie sax nit da koy yore ñu ne mairie diw moomul mairie bi pale bi ñu ne kër Macky daf ko moom moomu ko kon wa anal masajida lillahi kenn weddiw ko waaye ka moo moom lañu koy dàkkantale jërëjëf imam euh, dégg ngeen euh, muy euh, imaamu Tëngéej Abdoul Aziz donc Ndoye muy imaamu Tëngéej dégg nga kaddu yi rafet na lool di woo jeunesse ya sak ñu continuer ci lancé bi nga xamante ne mooy lancé bu baax continuer li nga xamante ne mooy diine gi respecter mag ñi rawatina kilifa diine jox leen cër bi nga xamante ne moom la leen yàlla jox mais tamit li nga xamante ne moom mooy manifestation yi en tout cas moom jàpp na ni yàlla mayul kenn koo xamante ni da ngay joxe sa bakkan ngir nit waaye joxe sa bakkan ngir ki nga xamante ni mooy ki ko jar mooy yàlla ci boppam ak ki nga xamante ni mooy yonent bi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal c'était euh, votre chaîne leader leral point net jërë ngeen jëf